Euh, chers Sénégalais kon yéen a ngi nii en direct devant le domicile du président Ousmane Sonko le maire de Ziguinchor comme ni ngeen ko xamee tey dafa amoon conseil municipal euh, mi ngi nii di doog jóge maire yi ci yoon bi jeunes yi dogaale ko euh, def une ñëw gunge ko. comme ngeen ko gisee le maire de Ziguinchor mu ngi doog a jóge maire yi ci yoon bi ndaw ñi dogaale ko mais dañ koy gunge ba mu yegg si këram dem vous le voyez des jeunes sont venus accompagner leur mère oui, nous sommes conscients, nous sommes conscients. kon euh, ñoo ñëwoon accompagner le maire.